ci ci hmm? rationalisation. Ouais. Euh, du de de de vie de l'État. Ah, ma dellu si waat parce que pare ah. woon na ma si daggoon. dellu si ci waaw beneen bi conseil économique sociale bi ba njëriñ la am ci réew mi dama koy tas HCCT la la am ci réew mi boobu ñi ñu jox foofu yëpp di leen jox salaire di leen jox oto di leen jox essence mais pourquoi te ñu war a tabax suñu hôpital yi ku feebar doo faju ñu war a jox nit ñi euh, fuñ jàngee xale yi ñu war a bay bara jox xale yi opportunité ñu jël ay politiciens casé leen ci benn gaz di leen jox xaalis yow lan mën nga ma wax lan la la HCCT jëriñ ci réew mi tey amul dama koy dindi xaalis boobu bëri na ay DG yu nekk ci réew mi depuis indépendance ñu ngi fi ñooy ils font la même chose. ay structure structure yoo xam te ne ils la même chose FONGIP DER et cetera yooyu yëpp dama koy wàññi l' essentiel on prend les meilleurs Sénégalais ñu def leen foofu. wàññi salaire yu bari yi ñuy jox nit ñi te amul njëriñ ministres yi pour man dafa bëri Sénégal États-Unis amul 20 ministres. te États-Unis 300 et quelques millions de personnes ñoo fa nekk. vous en fii man du ma dépenser 20 te ministre qualité la ñuy nekk. les meilleurs sénégalais fu ñu nekk dina leen fa jëli jox leen ci position bi parce que dañu nekk ci urgence ñu tabax réew mi. ministre conseil yu bari yi nga xam ne kenn xamul leen ñu sax gis président bi duñ ko dégg conseil boo xam ne <laughs> mais donc dul bind sax amoo sa email am ma am na su ñoo xam ne ba ma mujjee rencontre président dañu may bind ne ma bon euh, mën nga ma envoyé email am duñ ko sax am xam nga loolu yow doo xam nan nga ko mën a tuddee ko c'est-à-dire que xaalis bi ñuy pasar pasar yi parce que doomi Sénégal yi soxlawu ko man mu loolu laa bëgg a def ko ci l'essentiel beneen affaire bi mooy le Sénégal a de l'argent on mais boo boo boo xam sur la rationalisation. waaw du du du du train de vie de. de l'État de uh-huh. est-ce que xayma nga. Ah. d'abord. Mm-hmm. État du Sénégal. Mm-hmm. Euh, est-ce que xayma nga ñaata lañu le fonctionnement. des structures de l'État ah. ñaata lay coûter. lay coûter. est-ce mm-hmm. que xayma nga boo rationaliser. Euh, ñaata nga fay jël. Mhm. ak fan nga koy def maa ngi ciy liggéey ak sama équipe. loolu maa ngi ciy liggéey ak sama équipe bu baax a baax te danga ko gis sama programme bi yëpp li ma la wax nii yëpp dama koy dama koy man dama ko liggéey ba pare. wala ñu continuer ci liggéey ci chiffres yi ñu dese mais man leer na ma ne et train de vie de l'état bi boo ko wàññee rek loolu rek mën nañ dimbale xale ci emploi yi soxla. mais ñaata nga ci xalaat ne moom nga ci moom lañ ci mën a moom lañu ci mën a tiire. dëgg li wax ñu chiffres yooyu kay boo ko bëggee dinaa la ko jox fii ak kii fan. dama am expert yoo xam ne ñu ngi liggéey ci détail boobu mais loolu la vision est la beneen fi ñu koy jëlee mooy fan exemple yow dégg nga président mu wax semaine passée xam nga dégg ko ko dana génne 17 ñaata lañ wax 17 000 tonnes of uh, gold pet euh, or bi jógee fii ñu koy yóbbu bitim réew. 17 waaw waaw xaalis boobu fu mu jëm. presque 5000 milliards yoo xam ne depuis deux cent deux mille dix huit ba léegi xaalis boobu amuñu refinerie amuñu comptoir président ne dañoo war a def comptoir wax na dëgg mais man dama bëgg ñu def refinerie ci biir réew mi xam ne benn or dootul jóge ci biir réew mi te refinerie nañ ko fii. fii lañ koy tëggee. mais loolu mooy yoon tubaab bi noonu la def seen industrie bi yëpp mais ñun suñu ressources naturelles yëpp dañ koy jox waa bitim réew ñu teg ko ci avion wala ci ay bateau yóbbu ko refine ko. zircon bi c'est la même chose or bi c'est la même chose pétrole bi c'est la même chose mu ñu indiwaat ñu ko jaayal man ni ma bëgg def mooy mooy lan mooy suñu or bi ñu refine ko fii ci Sénégal yow est-ce que takk or boo xam ne Sénégal fii lañ ko jële mu leer na la Kédougou la jógee te pourtant war nañ ko mën a am parce que on est un pays ñu ngi produire pétrole ñu ngi produire or. waaw ah, dañuy dañuy génne or bi yóbbu ko. aéroport bitim réew. teg mu dem design ko. Mhm. indiwaat ko. voilà loolu ñaata emploi la mën a créer combien d' argent ça va amener combien de taxes les entreprises yooyu mën a fay ñaata bijoutiers yu nekk Sénégal sax ñoo ci mën a jëriñu ñaata jeunes yu jógee ak jigéen ñi nekk Kédougou ñoo ci mën a jëriñu nan ngay comprendre rek Kédougou un pays boo xam ne mu ngi produire lu mel loolu cinq mille et quelques milliards de dollars di génn par at ñoom mu am ba léegi ay pauvres yu nekk Kédougou nit ñoo xam ne cinq mill francs bu ñu lekk ko par jour amul problème amuñu mënuñu ko jël. da nga ne Sénégal am na xaalis. bu baax sax. à part le secteur de de l'or. Mhm. yan poche nga bëgg a. jëlee xaalis boobu jëlee xaalis ressources naturelles yëpp yar gaz la le pétrole. c'est-à-dire am na le zircon am nañ fer gaz et pétrole. Euh, am nañ phosphate on connaît déjà les on connaît déjà les les perspectives. waaw mais loolu xaalis la. 600 milliards. waaw. loolu loolu du lu ndaw bu ñu ko dugalee fu ñu ko war a dugal euh, réew mi mun ta ñàkk mun na mun na toll foo xam te dootul am problème bu ñu ko defee ci économie de la connaissance bi ma lay wax fii li fiy génn ci xaalis kenn warut woon pour mais mais mais mais xam nga économie c'est les prévisions. exactement. Macky Sall PTF yi. Mhm. des partenaires techniques et financiers. dañoo mhm. accompagner le Sénégal. Mhm. xaw nañ sax fermer les Euh, sur le rythme d'endettement parce que hmm. jàpp nañu ne 2024 hmm. dinañu hmm. tàmbali exploitation gaz et dina wàññi déficit bi uh-huh. ñoom Moustapha Ba fii ba 2029 ñoom am nañu les les perspectives économiques Sénégal am na ay engagements financier bien alors quand tu dis gaz ak pétrole ressources yi ñu fay jëlee euh, mën na mën na mën na mën na faj yëpp Euh, je dis que vous êtes un optimiste. bien sûr non mënuma wax ma ne mën na faj yëpp mais mën na participer ci li war a faj lépp yow gaz beeg pétrole bi rek man li ma bëgg def mooy def fi fonds boo xam ne fonds futur la koy tuddee pour xale yi. fonds futur. Mhm. cest à képp koo xamante ni am nga fi entreprise du juste gaz beeg petrole bi ah ci benn montant boo xamante ni même bu dee 10 pour cent ci li ngay produire su ëppee 1 milliard de dollars. tu paies 10 pour cent de taxe boobu pour mu dugg ci fonds boobu pour investir sur l' économie de la connaissance de la jeunesse loolu c' est beaucoup yu war a ñëw fii ci biir réew mi defuma ko gis ci pétrole bi gaz ma ko def ci zircon bi def ko ci oil bi def ko ci for bi def ko ci phosphate bi def ko fépp loo xam day jiko ci réew mi parce que réew yu mel ni Dubaï Abu Dhabi c' est ce qu' fait seen fonds yi dañ ci génne xaalis boo xam ne dañ ko réserver pour formation éducation ak formation des jeunes parce que li ma bëgg mooy ëllëg doomu sénégalais bi moom di exploiter pétrole bi dama bëgg la sénégalais ñu jox ko xam-xam boo xam ne dana mën a dem jëli or bi nekk Kédougou transformer ko boppam ñu créer ay champion sénégalais yoo xam ne ñooy exploiter suñu or bi nekk ci biir réew mi phosphate bi la même chose c'est-à-dire mënuñu continuer yor réew moo xam ne li ñu yor yëpp keneen moo koy jël si di ko defar te loolu il faut que ñu imposer ñi fi nekk que dañoo war a participer ci lii waxuma sénégalais de c'est-à-dire que ñi investir ci biir réew mi dañoo war a participer ci liy préparer la jeunesse qui doit venir